ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñu ànd ak yéen fu boole ci du ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yi mbokki Tawfekh Production ñu ngi fii ci Thiès Euh, tabarakallahu ci bis bi nga xam ni ci la Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni euh, di amal fii ci Thiès muy fàttaliku euh, dikku sëriñ bi le 11 novembre 1902 ci port Wassassiru Ndakaaru ñu di ko màggal tey 11 novembre 2020 fii ci Thiès général Cheikh Ahmadou Bamba bis boo xam ni fu ci ne nit na fa ñëw tey liñ fi gis kenn musu ko gis ndax moom maamam Serigne Touba rek lay wane Serigne Touba rek lay dund ndax léppam Cheikh Ahmadou Bamba la euh, Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni euh, dara leen raw ci Tawfekh Production ci bis bi fii ci promenade de Thiès ak bis bu mag bi nga xam ni ñu ngi séntu euh, général ngir discours bi nga xam ni moom la war a amal message bi na ko ñëpp xaar ci Tawfekh Production incha allah gars yi topp leen Tawfekh Production. Serigne jaajëf loolu dafay yëngal aras na leen jaajëfati borom tuuba loxo ja kaw ne leen jaajëfati borom tuuba nanu jaajëfe